الإيمان أيها الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كثير رحمه الله دفع وخنا فان بين يونيو تي الله بنيي واخ دانيال موي دانيال تبارك دغ تودي دانيال امغا موسى موي موسيس يعقوب موي جاكوب عيسى موي جيسوس Daniel mooy Daniel Samuel mooy Samuel et cetera et cetera Ibrahim mooy Abraham yonent Yàlla Daniel Daniel dafa wax ne Ibn Kassir moo koy indi bi muy firi suratu al araj wala al maarij suratu al maarij ñëwee ba ci inna al insana xuliqa haluan ba ci illa al musallina yonent Yàlla Daniel dafa wax ne xeetu yonent yàlla Moussa yàlla jox na leen julli gu xam ne bu ko ñoñ noox doon julli duñ lapp keroog gaal ga law salluha ma xariqu mu ne walla aad fa amma aadun fa uhliku bi riixin sorsarin aatiya saxaraha alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma من أوعاد ما أرسلت عليهم الريح الأقيم من ولا نيون عاد بن كجليون بن لين يون نعلا ولا ولا ما تذرو من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم يلا إن شاء الله مسلم من أو ثمودة ولا نيون ثمودة بن كجليون ما أخذتهم الصيحة فأخذتهم الصيحة فجعلنا عليها سافلها لا إله إلا الله allahuma axfadna bi xifdika allahuma arxamna mu ne yonent yàlla Daniel mu ne yàlla jox na xeet yonent yàlla Muhammad julli gu xam ne bu ko ñooñ noox julli woon duñ lab bu ko ñooñ aat julli ngelaw loola bu ko ñooñ samuut julli woon sayxa boobu noona xaacu boobu alakoon leen du am mu ne kon fa aleykum bisalaam mu ne kon fonk leen julli dellu léegi ci Ibnu Kathir boo delloo ci kër Oustaz Saliou Sy ñoom ay académicien la da ngeen ñu wax lu wér noonu la mbir mu ne inna al insana xuliqa haluwan nit dafa yëmb tiit dafa yëmb jaxasoo ila mu mel ni dañ ko laaj na ko insaan googu nit kooku yombati هلوعا من الهلع يوم تخشى بس يوم بتي من إذا نقول لك إنسان بوجو نتقو بموي كان من إذا مسه الشر جزوعا وجف جف أمير أخذه الجزع والفزع والخوف الشديد إذا مسه الشر جزوعا جزوعا إذا مسه الشر جزوعا بو جف أمير مجاسو massahul xayru man wax waaye nag bu yéer yéer ñëwee jàmm mu te yu bari fàtte lu bari inna al insana xuliqa halwa bu jafe-jafe amee jege si amee mu dem jege bàyyam bu jafe-jafe amee mu dem jege borom kër bu jafe-jafe amee demee mu ñëw seen nangam nangam kay wa ida massahu alxayru manuan bu yër ñëwee faraj alal ñëw teew wala mën-mën wala daraja mu fàtte moo tax dafa bokk ci jëfi gor wal birru laa yabla mbaax du ràpp kon li nga ciy jàngee bul di fàtte mbaax laa tansa bul fàtte démb ki nga àndal ngeen di ngor di ngor di ngor di ngor ba ci meññet ma bul ko fàtte ne yéen a yéen a yéen a départ garab xaaral ma dajul suuf am na benn gis-gis nag benn théorie léegi léegi ma defaral ko nit ñi dafa am ku ñëw ne ma diw sàngam nii maag moom ñoo doon bokk di fonse di naan mais léegi su ma ko soxlaa mën naa def ñetti fan ma ne ko waaw bul jaawale nag ma ne ko kii fu mu nekk nii il est responsable dañ koo dénk dossier yu bari nam doon wéeru téléphone mënu ko nam doon nam doon ma ne ko da nga koy nangul ngàntam waaye moom waa ji bañ toogee ma ne ko yow it la bul bokk ci diba mas sa bul xëyru man wax ndax kat ظل الله ملك الله رك مصخ الله مم رك فهو الملك لم من تدون كان كان موي موي في وون امون دليل نانغام نانغام كون اذا مسه الخير منوع كون فري بارينا بول ملني واجا نعلمته القافيه ماكو جانغال وي بام ديمي بام بنا وي حاجه mu ne man la njëkk jam ma jàngal ko jam fet ba mu demee wala ma tat ba mu demee ba dëgër ba bu diiree jam mu ne man la njëkk jam fet kon wa ida massahul xayru manuwaan waaye man maa ngi wax ci yàlla mu wax ci àdduna mu solo fa nga jaaroon la la fa jaarale ak kan la fa jaarale bul fàtte من الخير ما يوخ الخير عند الله الشيخ محمد المايسي يعني الله سامو كنا في ديك مني لينا جابون بني أغنى تيالا مني بكو با صلاة الفاتحة يا أكيد نانغ نانغ مني وتم كوي باي كونتينل متخ أمن لني تدي سر الوصول بوسانك باي على كل حال دوك لا بخانة لا بقول ba ba nga dee gis naa benn shérif bu ñëw kër bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane al Khalifa Ahmad doomam moom ko nettali shérif bi est-ce que rasa am ñu fa nag déet loolu moom man ñaar la dafa am benn kilifa bu mag mu xaddam bu mag bu bàyyi mu ne dafa dajeeg shérif bi moo tax il faut faire attention ci yàlla dafa dajeeg shérif bi ci buntu kër Pape Cheikh mu ne shérif bi ne ko yow nangam ngay faral di jàng mu ne ko waaw diw moom ko de mu tudd ko mag mu ne ko del jàng sirrul wusul keroog nag laa ne ko sëriñ ma luy sirrul wusul yi mu ne ma nangam ma ne ko léegi-léegi ci wéef mu bind ko jox ma walhamdulillah kon gis nga kooku te kooku ba muy ñëw dañ naan addi shiris bi ñaari dërëm ñetti dërëm mbooloo mu xam ne yem na ni fii ba kay maam dikk leen seet mu dajee sëriñ bi sëriñ bi ne ko nangam ngay jàngee yow mu ne ko waaw mu ne ko bàyyi ba tey jàngi si doon mosul li ma bëgg wax sàmm leen kóllëre ila masawul xayru man waan man waxuma dërëm dërëm yi tam déedéet wala poste wala nag déedéet ci yàlla nga xam nga loolu mooy lan li ma ci bëgg wax mooy lan aya bi moko ko firil xayru manoon mana ida masahu sharru jazwan mana lu julli jefe jefe lo khat khat dama julli ci man la way may lo la may intéressé wa ida masahul xayru manoon toog naan ataaya wala diw mo lay nangam wala diw mo lay nang ba do julli ci mané dede illa al musallin alladhina ala salatihim daimun yonent yàlla Daniel bu ñu firi nak ala salatihim daimun ci la indi wax ci waaye boo bëggee mucc ci ida massahu charru jazuwaan wa ida massahu alxayru manuwaan yii dañ ci bàyyi xel mooy illal musallin faw mu julli ci ala salaatihim daaimun daaimun ji mooy bi bi xushuuin wa xuduuin wa sakinatin wa waqaarin wa xuduurin illal musallin ala salaatihim daaimun benn benn melokaan boo bëggee génn ci ñu la waxoon ne benn noteel julli il faut aller prier waxoon naa leen barki démb ci ngatu bu ñëpp jullee julli juróom nag yow bu guddee nag bàyyil xel ci wa min al-layli bu guddee fa tahajjat bihi naafila wa min al-layli fasabbihhu wa adbaara sujud wa min al-layli fasabbihhu wa idbaara nujum wa min al-layli fasabbihhu ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا waaw fan laa waxoon naa leen ñeenti bu guddee yi bu guddee bu guddee bu guddee bu mu ne léegi nga mooy xaaj jëlal xaaj tuuti waaw man maa ngi rek ma ne la bu guddee xam nga li xew léegi bu guddee booy bu guddee nañ dajee station xam nga loolu xew booy bu nañ naan ataaya booy bu bul ma nañ man nekk naa Espagne Italie am fu may fanaan bu guddee may dégg këcëg këcëg këcëg këcëg ba fajar fan benn bis ma ne ko booy kay kay kay kay waaw yéen guddi lu ngeen di kaje kaje gi mu ne mais toos sama xarit bi nekk Amérique moom lay joué ma ne ko Amérique am jàmm Italie Cervia Amérique Italie ba léegi am nañ jeu yu xam ne dañuy équipe bi kii lay nekk Amérique kii lay nekk France kii lay nekk ci télé bi ci la ñuy joué ma ne ko waaw bàyyi ma leen ma ci kaje kaje ci guddi xoolal xoolal xoolal koy ne bu guddee nañ daje ci kii bi wa min al-layli bu guddee nangam nangam am na sax nag ñu naan bu guddee nañ dem toj bi tigi sangam bu guddee bu guddee waaye yàlla daf ne wa min al-layli fatahajjad wa min al-layli fasabbihhu wa min al-layli wa min al-layli bàyyi ci xel kon illal musallina gi julli juróom rek sax taxul may wax du rek ala salaatin daa'imin waaye walladina hum fii amwaalihim haqqun ma'luumun lis-saa'ili wal mahruum li bàyyi su lay doon wax léegi dindi joxe génne alal dafa neex ci xol nettali naa ko ba sonn waa ji ma ne sëriñ bi man bu ñuy wax ci joxe dama koy fekkee dama naan su ma ne su ma dugalee sama loxo bi rek sama xol bi bañ bës mu ne ma génn mu ne man daal bëgg naa joxe waaye sama xol bi xamu ma man xamu sax nu koy toll nag lu ma ko war a def man na xamu na ma def kon walladina fi amwaalihim joxe dimbali nit ñi amwaal almaalu bu ko arab waxee du dërëm du xaalis rek déedéet maal mooy lépp le moom lu ci nit soxla joxe lu ci nit soxla joxe la fanaa li ñu sélectif am monsieur le maire loolu la ñuy wax sélectif Fana bu xam ne da ngay fii fii ah yi motax waja bam ne dafa xam yalla ci kanam serigne mu yamba bawa waa renseignement nekkul fi mu yamba ci yéen xëcc ci kanam serigne serigne bi ma de xam yamba am jàmm nag serigne bi yow xanaa yalla yàlla fanaaw nga fi nan yamba serigne bi ne ko ah gendarmerie baa ngi nga ne Kër Massar gendarmerie Kër massa dama bëgg sa jum nga motti buntu gendarmerie ma xam doo fa tuxee ba mu jeex nga dellu moo xam ne tey yow nag dëgg la mu ne ko waaye sëñ bàyyi li ngay wax noonu waaye te buntu kër sëñ bi la motu la jubam yàlla ba de fanaaw sélective laa ko tuddee référence nett li waa ñu teg boolu ceeb bu xonk cor ñii julli mu ne moom julli woon na kuusi démb comme que bi am na kii du tudd waaye am na ñuy wax sax Cheikh Maye dañuy eh, takk rek dañuy julli ba pare ñu teg bool ceeb bu ponk ci ñu ñëw raxasul sukk ñoo ko de lan la man damay añ mu ne ku julli koo si démb wala añ démb koo si mu ne mu ni ñoom képp dem jàpp julli bi muy ñëwaat ndaw ko ndaay teg li ci ceeb bi yëpp am des ceebam leen ñu ne ko gis na julli koo si lii rek lay jur loo dem rek fekk ñu teg ñu la ca baax ñu julli wax na dañoo julli woon koo si bi nga ñëwee fekkoo fi jën fekkoo fi soble fekkoo fi yeneen ñi ci tegee lan la yu neex yëpp sëñ Gàmmu xam na ko donc fanaaw sélective la si noom fii am waali nit ki day jeex xam nga waa ji waa ji xaal yuuxu ba toj tant bi damu chaise yi ne loxo bi ci biir ne buxit muy ñaari junne mu delloo ñaari junne dugalaat génn ñaar téeméer mu ngi yuuxu de doora dem joxe ñaar téeméer <laughs> wallahi man dama waxuma fii ay ay ay ay te bu fekk dama la ci suñu xam ne dañu war a fay quatre quatre mille francs donc fanaa ak fanaaw day leen joxe day leen joxe fii amwaalihim haqqun ma'luumun lis-saa'ili wal-mahruum ñaari jikkoo yi noonu tabe idaa masaw léegi ba léegi loolu laa leen defee walladiina yusaddiquuna bi yawmi mana bayi kan na daga de wa yaqubuhu jazaa'un wa hisaabun wa man husiba uqiba حساب الدوير المغل يا من شعب مصر والذين يصدقون بيوم الدين لغاية نقول بس بيت ترى تحاول تدري محسك ولا نعم والذين من عذاب ربي مشفقون رجل مغل يا الله وإن بنيك دم تقول جانب مريض مصر إن عذاب ربهم غير مأمون فجتوب والذين هم لفروجهم حافظون نيوني السبي ولا تقربوا الزنا بول نجالو بوكو جيغي بول وخلو كوي جيغي جبر جامبول بال دومي جامبول بال ليلو تي بوخون شاب ذلك الشاب ناو لاكو نيوولو نكو اذن لي بالزنا ماي ما ديغال ما ديم جالو جي نيت ني بيغ تيغي دوخام يونتو بي نكو بالال كو مو اكسي مو اكسي مو نكو لوي سو سوخنا ndaw yonent bu baax ndaw ku mën a yee un grand éducateur pédagogue bàyyi leen ko ma wax lan la mu ne dama bëgg nga mu dema mayoon ndigal beneen jaaro bi nettali ko ci conférence bi ak la ci lu tax boo fekkoon mu jigéen nit di njaaloo moom mu ko waaw ñëpp noonu lañ mel seen mbokk yi di sa yaay mu ne na sa rakk bu jigéen mu ne nangam yonent bi ne ko jege seen mu ne ko nag ñi ñëpp bëgguñ ko njaaloo seen mbokk yonent bi fa dara ba mu dóor ci dënnam ñaanoo ko yàlla yàlla laabal xolam mu ba mu fa jógee mu gën a sëb ci lu yàlla tere moom ndaw loola gannaaw mu fa jógee mooy njaaloo ak yu mel ni moom maanaam rek mu dem lan pédagogie nag day am léegi-léegi ci njaboot gi li may wax rek maam Cheikh Omar Kone rahmatullahi alayhi moo doon wax ne ci waxtu reer bool yaa ngi tege bool yu bëri mu ne waaw moom li mu daan wax bëriwul kuy taal matt nga xen sataan mën naa yéex a tàkk wala du tàkk moom nag mu mel ni keroog daf doon wax ak man maam benn action keroog ma di ko topp ma di ko topp bu fu mujj man la góor gi waxoon dëgg la dama dem ci ay détails ala kulli xaal léegi-léegi moo tax nga gis ay mbir maanaam faaw nga am pédagogie nga xam ne it am matu yuy saxaar ma da ko sax rek nga xel ni parce que yow sa mission sax mooy upp ba matt yi bañ a tàkk-tàkk ndax matt yu ndaw yi sax kat ñax-ñax yi ñooy taaru yu mag yi gën a ji mag yi xale jooy ba bëgg ko loo jooy mu ne ko damaa jàng ku anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha annaasu wal ne yàlla daf ne dana lakk nit ñi ko bañ a topp ci safara su xam ne wa quuduha fuel la koy taal doomu aadama yi moom xale bi quatre vingt cinq ans six yaay na ko yow la logi yooyu mu ne ko déet yaay mën na ma gis ne fii matt yu ndaw ñooy taal matt yu mag yi matt yu mag yi door a teg mu ne ko dafa ne wa quuduha naasu nit ñi mune ko te fi bu fekke affaire bi ni la demé ñun matt ndoy bi ñoo taal matt yu bari kon ñun ñun ñoy yàlla lan nañu safara woon wala yi noom le faruñuy xaafiroon la ca wala wala bi bi shahadati shahadati qaimun wala yino le بشهادتهم قائمون والذين هم بأماناتهم وعهدهم يبرعون way way buñ la wolo fonkal sa bop benn xakim dafa wax ne waaye dafa ñëw ko may wax ci amaana jàppale melokaan yi ba amaana ci la bokk sàmm kóllëre mu ne ko teelee waa ji jaar naa ci kawam dafa ñëw ma teg ko kii mu ne ko jarul yeggale ko dafa la wóolu rek yow nga war ko mu ne ko ko du du mu ne ko garaawul de mu ne moom dafa la moom rek jàpp ne lim la jëm da nga ko rafetal da nga ko ko du problème mu dégg ak xel léegi-léegi nga ñëw teg ni ko xale yi di waxee teg diil paa bi waaw paa bi dafa waay ba teg ko diil teg ak jiba ba wilaan bi doomu bàjjan soo wilaan ak baaw kër damatu ñoom bu ñu waxee ñu ne boo ñëwaan di wax ak moom boo teeyee dina la wax lu xam ne moom baaw kër dafa xaw mu ne ma laay laxi di la man daal dama doon foog ne góor gi xamul ci benn bi sax ma ne ko loolu kañ man nii nga koy laaj yoon rek lay waat tey ba suba maa ngi waat ci yàlla ma bind foo rabbi lazi xalaqani wallazi nafsi bi yadihi yàlla mi nga xam ne mooy raison bakkan bi ma jógee Soudan 2002 maa ngi baraay sol chemise bu weex sol pantalon bu mboq ak daal yu weex 2002 boobu ba léegi sama bopp bi tuuti étudiant mu ngi ci ma sob ci gëstu gëstu ku ma dégg ni moo yore pour nangam rek may dem rek boobu am naa as te gàddu ma dara nag ku ma dem ku ma dégg ne nangam rek maa ngi jox gëstu fanaan ak yow fu bëree bëree bëri ba benn bis nag Mansour Sall wax ko mu leer doomu Alhaji Maodo Sall Alhaji Maodo Sall bàyyam ak sa jabar Sall dafa naa ñoo bokk bàyyi wala ndey bàyyi Alaaji Maodo Sall ndar la nekkoon Pikine ñu bëri xam nañ ko yàlla googu yàlla mooy wax rahmatullahi alayhi doomam ñoo bokk nekk Soudan moom Sall moom it comme ci daara jooju nag bi ñu bisee Soudan moom it mu bëri lool lu muy yëngu ci gëstu as benn bis Dakar Pikine cité pépinière kër Alaaji Maodo Sall yàgg na ma ñu am fuñ dajee mu am benn tur bu ma jox ne ma lii am ma jox la ko ndax man sama baay Sall ana vérifié bi ma ko indee ko ko daf ne ma Mansour lii benn nga wéddu ko ma dem bala fi nga bàyyee ma ko ñun ñëpp ñu bokk nekk fi Mansour Sall maa ngi wax ci rajo bi sax mu ne ma yow xaaral ma jox la ma ko ma ñëw gannaaw tamit cité pépinière kër Alaaji Massall ma agsi dugal ko ba ñëw nuyu góor gi góor gi ne ma am na loo indiwaale billahi lazi laa ilaha illa amuma li ma indiwaale mu ne ma am na këyit guñ la jox demal nga indil ma laa ilaha illa bi ma ñëwee bi bi ma ko ko joxee ko ne ma doom ba ma maame ko ñu bokk nekk fi ma yëkkati ko jox ko ko ñemeetuma ko ko laaj yàlla dogal si ba nee ba ca kanam sax sama xel génn ci ay at parce que góor gi ba muy dal si dëkk ñaar Babacar Ndiaye yéen année la yàgg na boobu masal la yàgg na ba ni mu wuy ji boromam deux mille quinze génnee àdduna la fekk këyit yi tajee ci barab ma bëgg wax foofu mooy waaw ñooñu nag foofu ngay ñëw ci mbiri àdduna booy wax dañ lay toog di la déglu a ah, ngeen li tama nekk la xise boobu li ma waxoon ci benn ndaw ma ne ko Cheikh Mouhamadul Mahi maag moom ñoo àndoon ci ay tukki te buy ci nit ne fii yàlla tere leen na man ne jege naa ko xamee ne ma ko ci boppam. ne ko sëriñ bu fanaan dama dama ni ñëpp jégal ci canapé

nga ne mu ne wax na ko na ko séddale na ko séddale na ko séddale waaye bëri na ñu ñuy jox di dugal seen poos na président bu leen président jox joxol jiw la ñuy wax mais ana moom ñu ko sa doom bàyyi xarit mu ne nee mu séddale ko bi ci gën a bi ci mujj kañ man kañ maa ngi woon Nigéria jeex na tàkk na balaa wax waaye dañ doon fëgg porte par porte dollar lañ doon séddale la sëriñ bi waxoon nañ ko séddale xam nga dama ne li may wax ni mën naa am fay mën naa am sëriñ bi may seetaan dollar dollar mel ni mi laa wax de porte par porte trois paliers ci hôtel euh, top top rank sëriñ bi ne séddale leen lépp ñuy fëgg ak si sama bunt bi deux mille dix deux deux cent dix-sept ma ne alhamdulilah waaye nag man الشيخ أحمد التجاني خليفة شامل التجاني بما كونفرنس لو دارو مبيتي من الشيخ مصطفى جاي رحمة الله عليه وبرا الشيخ محمد لمين بيتي نتلي ناكو باي سيان ملي مانكو يوحات نيب ديغ ما ما برا ما ديف كونفرنس ما برا الشيخ مكي نيو ديف غامو تي سوبا غا بما ديبي نوي جيكو ñëpp bay fall di leen toog Boubacar Dooma mu ngi toog Cheikh Ahmad mu ngi toog ak Hafiz ak ñeneen mu génnee enveloppe jox ma ne ma ñaar fukki junne ci nekk demal nga raxasu ci moom xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane yi xanaa li may wax ñeme naa ko ma taf ko ci sama dënn raay ko ci sama dënn sukkaat na ko sëriñ bi joxe naa ko addiya mu ne ma déedéet yéen ñëpp laa jox raxasu ci rek ma ne ko waaw sëriñ bi ñas yow koo jox mu jël kenn sañul laa gàntu mais waaye xanaa man sama bopp sax mën naa ko joxe addiya baay mu ne ma waaw ma ne ko enveloppe bi joxewaat naa ko addiya baay mu ne ma jege si ma jege mu teg ñaari loxo mi sell yi ci sama bopp bi xaw ma nag lu mu wax waaye sama bopp bii sant naa ci yàlla keroog ba tey alhamdulilah ah. <laughs> moom mii xam naa ko ko bës meew génn <laughs> maa ngi wax ñu jégal ma sax waaye sant yàlla ngeen jégal ma sax ci li may wax si yàlla rek tax may wax doomam buuba dafa jóg ci biir nit ñi ne ko bay waxoon naa leen ne ñépp nang leen jox Cheikh Ibrahima jarul defaral enveloppe boo ko ko joxee du ko jël maa ngi koy wax te ma ne buuba dina ma dégg mu ne ko papa waxoon naa leen ne Cheikh boo ko jox boo ko joxee du ko jël may lox bay si ñaan nettalu ma la ko tey fi ma toog may lox ma ne man enveloppe bii tey su ma ko jëloon fu ma jëm ci kët ak duna ma ne alhamdulilah ku wóolu yàlla yàlla du la teg gàcce waaye sama gëm-gëm la nag bam ñu yónnee ñangeen ak doomam Cheikh Ahmad ne ma kaay nga ànd ak Ahmad conférence ñangeen ñu ñëw Ousmane Niang xaritu Omar ba mii ci saag bi ca station bu mujj ba ne sëriñ bi mu ne oto yëpp naa ci def nangam bu nekk essence bu nekk gaz ma ne ko man jël naa réservoir plein café balaa may départ yàlla xam na ne boobu quinze 15000 laa def ma ne ko na ma sëriñ bi ñaanal rek. may man di bokki sama boss lima ma bi lañ ma joxoon Mali muqaddam ba fa nekkon ak khalifa bi lam waxon nañ mako jox ak lañ ma joxoon nigeria yépp ma ngi ko denc dara ko yobul serigne bi bes ñaan waxuma la ko ci bi lépp ko yobul serigne bi ngi ko denc dana dem ba ci mom ma ne ko sëriñ jox na la ko addiya ñaanal ma yalla dama ñaanal yalla rek man man man lula lula gëm pourtant man ne jox nañ ma xaalis bi ma ne maa ko denc dollar yi ma joxoon Nigéria ma ne maa ko denc te bu ma ko yóbbu yéen ñii lay àndal dinaa dem ba ci moom ne ko comme joxoon nga ma jël naa sëriñ mi joxaat naa ko addiya man loolu mooy sama gëm-gëm maa ngi yàlla dama agsi Nigéria ne cëpp waa ji ne ma jëndal naa la oto bii yow laa ko jëndal mu ngi ñëw wala mu ko jëndee tabaarkalla wa lillaahi alhamdu يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون ولله يقولون لو شخص يقولون ينف جميرة يقولون دم ما يقولون أصلاً جوه يقولون ولا ممكن يقولون ولا أنا يقولون جوه عندي يقولون كوب أصلاً يقولون ولا ممكن يقولون كن لأماناتهم يقولون دينكوا يسمو يقولون راعون أنا يقولون بشهاداتهم boy يقولون xam nga يقولون koy firilé يقولون koy firé يقولون simplifier ko يقولون lo xam يقولون moy témoignage looy wax bul yokk bul wàññi loolu rek mooy shahada wa ida qultum fadilu walaw kana daa qurba booy wax mandul dële ci kim jëm sa jege sa jege ñaale la dële borom doole la bële dële borom domba tànk la ku mënta loolu wa ida qultum fadilu bokk yi lii rek laa bëggoon a fàttali sama bopp fàttali leen ko Cheikh Moustapha ni mu ko waxee maa ngi koy ndokkeel ci xew-xew yi weesu ci pay bi yii nga xam ne kenn mënul ko ci waaye ndimbalal yàlla la li mu wax juróom-ñetti fukki junne ci bi ci mujj ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen te am naa yëqin su ma ko sasoon juróom-ñetti fukki million mu indi ko benn waaye ñëw ne ma sëñ bi sas ma loo ma sas ma def ko fii ma ne ko sasal sa bopp seetal li la mbir mi jaral rek nga def ko fa inna manzilataka inda allahi manzilatu moo tax bi may tëjee mooy incha allah jumaa ji dama bëgg Baye Niass moo joxe woon ndigal keroog bi ma demee ci Cheikh Mahi di ko ko wax daf ne ma ndigal loolu bàyyi moo joxe woon ndigal ndigal li mooy wéy waaye dem leen ngeen rëdd amoon naa yaakaar mu am fu mu jaar yàlla dogalut ko xamul tax wa idaa qultum fa'dilu xamul tax waaye bàyyi dafa woote woon daawatul jafalaa 1958 jumaa ju mag ji nit ñëw maa ngi wax ñëw leen bu paree kenn dootu ci mën a def ba muy rëdd nag maam haadi ne ko sëriñ bi mbaadu nga dem Hijaas gis ñu rëdd seen rëdd yu rëy yooya rek nga ñëw di leen toppandoor fooy jëlee ciment ak fer boo ciy def même boo amee ciment ak fer man mbooloo moo koy dundal sëriñ bi ne rëdd wi li rëy rëy yàlla rek laa ci yaakaar jumaa ja pare na waaye maam Hadi la ko gënoon a jaaxal mu ne mbooloo ma fees na wala fees na dell ñu ne Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacke ba mu yónni woon bañ demee def na leen nu hibra defee ñu ne ko rëdd wu yaatu la rëdd mu ne nam tollu fa yàlla rek la ndaw ku baax moom it Cheikh Mahamadou yi jumaa ji dama bëgg ñu tabax ko ci seeni dërëm dërëm ci fan yu néew dinaa def lancement des travaux xam nga lu ñuy tuddee lancement des travaux dinaa ñëw ñu dëkkati commencé teel leen teel leen déedéet bu ma kenn jox dara non non jumaa ji demeewul nii bu ma kenn jox dara demeewul noonu bu leen ma jox dara dinaa def lancement des travaux xam ngeen fu ma ko tegam dellu ci kayit go xamne ne ci gis alaaji ko Diané signé par alaaji ko Diané Momar tala Ndaw borom dekk Alassane Cissé Abdou Roqe Ndaw demé demé mo ci kayit bu njëkk ga pour yu bari bari bari boori boobu Mamadou Sall moy sous préfet arrondissement bu daal ma dama ca fañ doon dajalé mané ah kon lii li ko fi def moko moko moko moko defat je lance un appel à tous les talibés de Darul Mouhibine et les sympathisants Kune linga am indil mako. ko ma def lancement des travaux ma tabax jumaa ji na soob yàlla waxuma keneen waaye yéen ñi nekk Darou Mouhibine loolu sax jarul ak jarul jarul màgg ci bu ngeen ma ko bàyyee ma tabax billahi lazi la ilaha illa huwa bu yag nak diw sangam dina ma deg yey na ma ndaw la sant ku bax mune ma Cheikh Ibrahim songal juma ji ñew nga wax mako man ko deer xaaral ku bax la ndaw na yalla ko yalla doli ak ci insha allah dina bëgg na def lancement des travaux ñu jublu ci juma ji tabax ko ci darul muhibbin Daaru Muhibin kat dafa am place bu yaatu ci pay bi shérif mii léegi moo ñu taril abiyaati jaawastu Kaffrine wa jiitu Godiba Cheikh Ibrahim Niass mustaxaar kenn Cheikh Alaj Baabu ba mustaxaar kenn mu mel ni sax dama am dars du tere nag fu nit mën a jógee ak koo mën a doo yéene joo mën a am ahlan wa sahlan bunta biiw kenn du ko tëj ku mu mënta doon nag maa ngi lay wax ne jumaa jaa ngi nii ku mu mënta doon waaye nag mbooloo mii nii toog ak mbooloo mi nekkoon de mu mandaax njuujeen sañ ci gal ngoone ziyaare ngodi ba wax dëgg yàlla yaakaar yoroo kenn ku nekk cinq mille francs rek laa wax cinq mille francs rek yaakaar naa mu def lu bëri ba ca Gambie gàmmo jotaayu Alaaji Assane Camara wilaay bi am na loo xam ne dama tëdd ba guddi ni bërit yedd ci sama ma xool sax ma man kat oto bi may dawal nii kat sax naa jumaa ji ñoo ko war a liggéey ak leneen luy ñëw nag dégg ngeen ma wala déggu ma li may tëjee Baye Souleye xisa bi mu doon nettali ci kër maam Buri Ndaw yaa Awa Cheikh Ndiobo yaayu way juru soxna Khadija soxna mu Serigne Makki Papa Aliou Diagne nee nañ dafa taxaw ne ko alaaji baabu yaa gën a xam ne nangam nangam faw ñu rey nag taxar la ñu indiwaale woon wala ñu ne tekk rek mu ne ko alaaji baabu ana nag wi ci digg Kaffrine jamono neexut mos ta neex mais dañ doon def ñu déparé fa ñëw ci góor gi beneen yoon maam Elimane ñu ko ndaw wax ko ko mu ne nag yi de sàmmi nañ foog naan ñu ngi tollu lànk daan ak ji mbeng moo nettali maam Elimane ne leen bu ngeen mën a jot nag ya de yaakaar naa ne fu mu ne côté lànk daan ak ji mbeng mu ne ñu ngi ko fekk lànk daan sàmm ba fa lañ jàppee yëkk woo teg ko ci saret yóbbu ko Kaffrine rendi ko loola nag ba tey mbóot mooma gis nga alaaj boobu bi mu dëggee bi mu dëggoo ci bàyyi ma ne bàyyi Aliou Diagne keroog dafa wàññi waroon na laaj alaaj boobu junnee nag faw yàlla am kum tàggat mu indi ko taalibi lu mu bëgg moom keroog buñ ko newoon alaaj boobu fukki nag lañuy ñuy rey xaw ma mooy di ma la ñuy miraas xaw ma nu muy demee mais faw fukki nag la wala wu maa ngi ndokkee Cheikh Moustapha ci yitte jooju nga xam ne mu ngi ci moom moom dégg na tey ba ñeseen ji moom laa ko dénk ne ko dem leen ngeen tabax ko su ma yoon nekku ci te ba léegi wax naa ko sumb yëpp nañ ko gàccoo li takunu axraaran ngir ngeen nekk di ay gor fala tamlikukum danaa niiru naasi bu leen diinaari nit ñi def jaam ولو تبيت في كوخين دونت تي نيغو نياخ غاي فنان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما صلح الناس ولا هادي الا صلاتك قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح خلق والقاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتر خلق والقاتم سبق سبقنا سراق بالحق ولا لا صراطك المستقيم ولا آله يضرب بمقداره